laal na ko sol koog loxo góosam da koo bëgg a bët Ndiaye ak Baye Mandione Ndiaye ak na ko daan na ko laa ilaha illallah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokk internet ñu ngi leen di bégg bu baax a baax di leen ziar di ñaanal jàmm di ko sartu ci yéen tey nag le euh, lundi 27 février Euh, ma feggoog Abou Ndour comme ni ngeen ko daan amee te mu gëjoon lool mais balaa ñoo sori nag dañ leen di bàyyi rek ngeen seetaan li yëglekaay yi indi ñu dikkaat. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 27 février 2023 ñu wax yéen ci likaay yi xëy ko dore sunu làmb moo xam sunu làmb la sax wala les arènes boo bëggee dégg-dëgg fu nekk daal coowal rëg-rëg ak Sa Thiès mu nga fa tey moo fees dell ci yëglikaay yi bu dee sunu làmb la moom la mënu xëy xamal nee na jàkkaarloo bi nga xam ne moom waroon am bërki démb te ñëpp doon ko xaar daal fa mu mujjee moom moo di ci wàllum sànnente ay gàllaaj xeexoog dóorante ba tax daal maanaam mbir yam mujjul am nañ ko doon xaare statistique ba moom moo yàq la nga xam ne nii moom moo waroon a am foofu yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb loolu la xëy tey wax nu ko mel ni ki nag yemu ca ne na daal maanaam CNG moom ci semaine bi dana convoqué ñaari mbër yi sunu làmb moo xëy wax loolu les arènes tamit dikkal ñu ci ay vidéo ci ay réaction moo xam waa Caaroy la wala waa Géejawaay ku ci nekk daal yaa ngi koy jiñ sa moroom bu seex waxee fii liiru jaan tontu ko fële Ali wax fële ku wax nga daal ne yow la yemu ca dikkal nañ ci benn papier dina xam ne daal seen chef mu nekk nii daal mu ngi xaar di déglu maanaam lépp liñ ko war a jox bu dajee ngir ngir nag mu xool nu muy def ak ñaari mbër yooyu balaa ñoo bëri wala boog seen ñaari camp yooyu bu bëggee dégg-dëgg daal coow loolu fi mu nekk nii mu ngi ci yëglekaay yépp su ma continuer ba tey delluwaat sunu làmb su ma fa dikkee nag dama fay fekk mooy li amoon ci weekend bi ci wàllu làmbi dóor mel ni ki nag ki nga xam ne nii moom moo di xale bi ñuy wax fis dëkkati moom ca samedi ja Jurbel production moo tëggoon combat am moo soq de waaye daal daa mel ni combat ba yàggul tewul ki nga xam ne nii moom moo def fis dëkkati wan soq de ne ko maala man daan ko ba bës ko ca suuf sa bët set ki nga xam ne nii moom moo moo di waa Teranga production dal di ñëw indi ki nga xam ne nii moom moo di booy booba ak ki nga xam ne nii moom moo di abu ñaas numéro 2 combat booba nag moom boo bëggee dégg dëkk bëri bu méttee méttee fa am bëri bu yàgg te neex lool lool mel ni ki nag waa production moom boo bëggee dégg-dëgg combat ba ñu tëg dem foo ko takk ci neexaay ci wàllum bëre yegg na fa mel ni ki nag ñaari mbër ya bëri nañ douze minutes yoo xam ne ni daal tegal na ka nga xam ne moom moo di booy buuba mujj daan ka nga xam ne moom moo di abu ñaase numéro deux mel ni ki nag ba tey sunu làmb mu ngi xam ne daal galaaw la menge ba bu bëggee dégg-dëgg samedi ji nu génne daal wala boog ci samedi ji nga xam ne lay am diggante sox-sox ak buur saalum loolu yëglikaay moo xëy ñëw wax nu ko Mor Diouf ko waa làmb gën a xame mu nga xëy di wax ci diggante Batista numéro 2 ak ki nga xam ne ni moom moo di Boy Sadio ca écrit Lansar ñoom seen combat la 4 mars lay doon la mu xëy xam ne nag nee na daal combat boobu bu bëggee dégg-dëgg moor ne na Batista numéro 2 moom mooy favori waaye nag favori ga moom légèrement la ko ko jox su ma fa jógee dem les arènes les arènes la ma fay fekk moom moo di jëf ji nga xam ne ministre des sports jëf na ko mu Yankhoba Diattara Yankhoba Diattara daal daal dafa mel ni dem na xooli Mohamed Ali wala bu fekkente ne def na loolu tamit yemu ci yëkkati na lu toll ci ñaari millions nag ku ne xam na ne AC Gloire boobu boobu boobu ba tey mu ngi tëdd feebar ministre des sports nag jëf jooju daal lanu leesaran xëy xamal ne def na lu mel ni ki noonu yëglikaay bi ba tey bu ci continuer dikkal nañ ci ki nga xam ne nii moom moo di Mamadou Faye ordinateur mel ni nag suspendroon nañ ko waaye nag suspension ba moom boo bëggee dégg-dëgg jeex lay def maanaam le 28 bi nekk daal di suba sax lay jeex kon le premier mars daal boo bëggee dégg-dëgg Mamadou Faye bu ko neexee fu ko neex takkaat ngembam bëree fa moom yëglikaay bi di leesaren moo xëy ñëw di nu xamal lu mel ni ne ki noonu mel ne ki tey ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi tamit mu ngi xamal ne daal caaka fay ak la nga xam ne nii moom la nekk fa nga xam ne nii moo di nga xam ne moom moo di ADS daal la nga xam ne nii moo fa amoon est-ce que moom moo ko jël wala sax moom moo jël lan fa tegoon muy drapeau Ansel Fall te ki nga xam ne nii moom moo di Ablaye Diop sum production tëggoon ko mel ni ki loolu tamit mu ngi amoon fi nga xam ne nii moom moo di ci dimanche yi démb ji mel ni kon lit simple bi tamit yëngutu woon na bu baax a baax a baax a fa nga xam ne nii moom moo di Adrien Senghor loolu yëglikaay bi di Les Arènes moo xëy ñëw dina wax lu mel ni ki noonu mu mel ni kon tey loolu moo fi dikkoon ci yëglikaay yi ba tey les arènes mu ngi nuy xamal ne daal ndem si yàlla sëñ Modou Niang ku ne xam na ne bés ba nga xam ne ci la génn àddina am na journée boo xam ne waroon na ko tëgg mel ni ki nag mu mel ni journée booba nag boo bëggee dégg dëgg fi mu nekk nii daal waa mu Niang production ñi fi des te desaf structure bi fas nañ ko yéenee tëgg la 11 mars bi nga xam ne moom la ñu jëm kon sëñ Modou Niang moomu yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana mel ni ki nag àddina moom noonu rekk la demal la ak maa ngi ñëw jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay li yi nga xam ne moom mooy sunu làmb ak les arènes li ñu xëy tey andil mais balaa ma sori rek mën nuyu Abou di ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Abou maa ngi lay bëgg bu baax a a a a baax waaleykum salaam wa rahmatullah suñu Babacar bu yow tam maa ngi lay bëgg jële nuyu di nuyu madame mhm. di nuyu les madame lay wax les waaw mesdames waaw mesdames mesdames waaw mesdames ah d'accord waaw di nuyu di nuyu euh, Habib bi ne sunu kanam waaye di nuyu tamit euh, Mansour di ko ñaanal tan yaram bee xaw a sutal dañu ko ñaanal tamit bu mu ñëwaat incha allah. Mhm. waaw am na solo abu abu mel ni fa nii nag moom xawoon nga kii quoi rare. waaw naa presque un mois sax xaw ma. boo boo amee ku la mën a wuutu da ngay da ngay mën di raar suñu Babacar du liggéey bi na lay demee. xam nga mën naa génn te euh, sama gannaaw du ma xalaat ne dara mën na sooxe ci liggéey bi. Mhm. ku mel ni yow boo ko amee da xam ne mën na xam nga léeg-léeg nga am yeneen liggéey yooyu def yeneen affaire yooyu def wala yenn lijjante yooyu def wala yenn yëpp ci kër gi lay dem wala ci yeneen rek pour yeneen ni pour léeg am waaw yeneen bi def daal yooyu def loolu la rek et puis léeg-léeg naa fi toog bàyyi la nga liggéey ndax xam naa ne voilà mu mu mu mu tëggal sa sa daal macha allah. <laughs> waaw ñu ngi tax maa ngi jéem a taxale de. waaw waaw maa ngi jéem a taxale. mais abu tey dafa mel ni suñu làmb ak les arènes nag ñëpp yëglekaay képp kuy wax ci làmb. ci mm-hmm. journaux yi sax. Mm-hmm. tey fi ñu xëy tey ubbee. Mm-hmm. moom moo di Reug Reug Sa Thiès. waaw bi waroon am bëri dem lay signaar. te malheureusement la ñuy wax parce que mujjul am. te ñëpp a doon xaar ci télévision bi ak ci site internet yi. mais mais fa mu mujjee moom mooy. bagaar mhm. sànnente gàllaaj ba mu mhm. mujj a tas wax nga dëgg naa yaa nga foon waaw defe naa la fa xew yëpp sa kanam la xewe waaw loolu tey mhm. ñépp xëy nañ di ci wax ba ay ñu ngi xalaat naan CNC est-ce que du leen woo après waaw wala CNC bu amee document yëpp bu amee renseignement yëpp leen woo yu mel looy wax si loolu wax nga dëgg sëñ Babacar yow mi tam fa nga nekkoon ñun ñëpp fa lañ nekkoon du du du lu ñuy nettali kanam la la xewee la lépp xewee mooy rëg-rëg njëkk na ñëw toog ak ak waa di dem saa teeg moom mujjee ñëw ku ñoom tam ku nekk boo bokkul ak fi nga jaar ak sa sa morom bokkul ku nekk buntu lañ la réservé hmm. ñoom Reug Reug ñëwee ak waa këram toog bi ñoom Saar Thiès ñëwee nag ba egsi laataay ñu toog sa la si ci la fa la fa xew daal ci la foofu waaw ci ci la xewee hmm. kan moo njëkk sànni kan moo man mënuma ko wax man hmm. parce que mënuma ko wax daal waaye xam naa ne sànnante ay sottante ay gàllaaj ak yooyu sànnante ay kii ay ay ay potion yooyu ay gallaaj am na fa ba après kii Pala Diop nga xam ne mooy manageru Reug Reug ne ko jógal nga dem donc moom mu ñu génn Sathiès it vraiment xawoon mer lool mooy ay nitam vraiment aalu fa daal et tout ça nekk nag hors de lui vraiment et tout ça xam naa tension la beeg yooyu boo waaye daal loo ci mën a dégg mooy nekkul lu rafet sëñ Babacar. Hmm. dégg defe naa ne. waaw man ko boobu laa gën sax ñu bëgg sax ñu wax ci quoi. parce que à l'image de euh, lutte sénégalaise. waaw waaw tey image su Sathiès image su Reug Reug. waaw. am na benn vidéo xam naa dina génn. waaw mel ni Laurent Ndiago am na lu mu ci wax. Hmm. démb jël naa ko moom lu mu ci wax. te hmm. xale la. Hmm. defe naa ne rëg-rëg ak Sa Thiès. ak ñi leen encadré. parce que dafay am loo xam ne c'est responsabilité les encadreurs la. si yaa ngi dégg dëgg la parce que li am démb bërki démb. Euh, vraiment bon dañ daan làmb coow mais façon façon yooyu bëgguñu ko quoi. da nga naan ñoom la waaw. xam nga gisuñu rëg-rëg. waaw voilà. ak Sa Thiès en tant di xeex wala di nag wala ñi ñi ànd ak ñoom en tout cas defee après la c'est-à-dire accompagnant yi ñoo ko def te xam nga suñu baab nga accompagnant yi tey mm-hmm. Sa Thiès ak Reug Reug amuñu tey beneen liggéey bu budul lamb accompagnant yi ku ne mën nga am yeneen liggéey ñi ay tailleur lañu ñi ay nangam ku ne mm-hmm. moom bu nu bu nu liggéey bu nu demul tey ànd ak Sa Thiès wala Reug Reug mën nañu liggéey seen liggéey mm-hmm. mais Reug Reug Sa Thiès tey bu ñu bëreetul lu ñu def te te buñ fi defee defoo leen loo xam ne dañ leen di aj après lan la ñuy def sëñ sëñ Babacar làmb ji dafa raflé woon ay annonceur mm-hmm. ay ay ay ay ay ay sponsor mm-hmm. sa Gaston Mbengue ak ay euh, ak affiche personnalité ak yooyu mm-hmm. dem ba am ñu mu indi ku ku mel ku si mel ni wan expert ñu gis li muy def di may ay ay direct jël alal bi bëree bëri bëri di ko def si làmb ñun ñoo keroog installé ay matériel lépp indi xaalis bu du jeex. DK ñëw KPI DK DK nañu indi woon na 1000 billets pour may ko KPI 500 500 500 ku ne Omaro gis naa ko mu ngi yore tout ça. xam nga dafa am loolu yëpp làmb soxlaatul. soxlaatul lu mel noonu. Mm-hmm. làmb lu ko taaral la soxla. soxla bi nga xool tey ñaata vidéo ñoo fa nekkoon ay site di def ay vidéo image yooyu war a war a war a war a tas ci àddina bi mm-hmm. loolu ñaaw na man ni may encore une fois accompagnant yi. laay laay waxal dañoo war a te mbëri tamit nag ñoom ñoo war a wax ak seen accompagnant nag ah, bien sûr gisaat mbëri xam ne ñoo doon toog ak seen accompagnant ne mm-hmm. léegi-léegi ku si def léegi-léegi ëllëg si biir doo doo dama topp mm-hmm. parce que ñoom la ñu yàqal loolu daal vraiment nekk na loolu fetal Mohamed Ndao Tyson bëri na ba ba bàyyi waaw donte am na njuumte ci lam ndax ku dul jum doon it waaye ku jum dëkk ci doon it waaw defe naa la ko daloon moom ci gir biir géew la ko dale mooy arbitre joxe ndiga joxe la moo gis moom d'accord ci mu sàqi dem waaye nag ci ay face à te defe naa ci su ma jumul ci moom mhm. la face à face njëkk amee diggante mag Bombardier mhm. mbër toog nii mbër toog nii ci taabal mhm. ngeen waxante seen premier komba te defe naa bëri na ba bàyyi bëri bëri lu ne dund na ko ci biir carrière am mais mosuñu koo dégg sax mu doxee neen wala mu waxee neen ni suñ ko dee wax nag mooy ñoom lee les leaders là actuellement. Mm-hmm. Mm-hmm. ñoom ñoo war a am benn communication bu ñu jëmale ci seen ay. àndandoo ñi ñuy àndal bu ñëw ci signature yi. Mm-hmm. ku mel ni Bombardier ñëpp chaque jour nit ñi cité ko. ci communication bu baax. parce que lan la signature ngeen ñëw. na ku ne toog lu ngeen di kii ngeen def ko ku ne defal sa mbër gàllaajam. mais nag foofu bu ngeen fa xëppante ak endroit ba ni mu mel te ñi ñi ànd ak yii na koy def. fan lay mujjee xeex. xam nga ku loolu tay de wax nga ko. ku mel ku mel ni Yékini. waaw 20 22 a convoqué commission de discipline. kenn mosu dagg xaalis. mooy mooy respect mooy mooy respect nekk professionnel. mooy xam li nga war a def. def ko si heure ba bëri jot jot nga dem bëre. loolu mooy yoon. soo tëddee xalaat gis nga Babacar lii daan mbër du du yooyu ñuy def. et puis ay xorom dëkk tey xorom lañu lañu lañu lañu. ay xorom ak ay dugub boobu benn policier dañ ko sotti xorom ba bët yi kii bi yàqu loolu loolu mais loolu rafetul euh, Babacar loolu mën na ñàkk te loolu lii daan mbari wallaay du foofu muy muy Sa muy Reug Reug lii lay lii leen di daan nekkul loolu kon loolu na leen gën a bàyyi xel boo si jógee nag wax nga ko mooy CNG lu ci mën taxawee dëgg suñu mbokk waa kii wax nañ si hmm, ne leen convoqué si semaine bi mais ñoom li ñuy wax mooy viket bi la am ñi fa nekkaloon seen jëm mooy Thiam. ak commandant Thioune ak ay ay rapport la ñu def war ko war ko jébal waa CNG waaye comme réunion mm-hmm. amagul. Mm-hmm. même Bira sax xamagul lan moo ne si rapport yi kon nag mënagul wax waxu waxu sanction. Mm-hmm. il faut ñu def indi tey rapport tey suba. après midi bu ñu def réunion ñu def réunion ñu basé nag si rapport yi ñu indi. xool nag lu ñuy def te xam nga tamit baam kan. saa cee sax rek rek seen combat mu toll. jàpp ne même lu lu ñu mën def. pour ñu convoquer leen ci semaine combat bi loolu te jëluwul maanaam man man yaakaaruma jëluwul maanaam parce que loolu tamit mënul ne ñoom fi ñu toll te ak seen combat bi toll ni si àdduna yëpp di ko waxtaane combat bi am ampleur mu même bu leen di déglu mhm. jàpp naa ne dañuy bàyyi bu ñu bu ñu déglu leen mais mënuñu leen déglu ci semaine combat bi amul sens Ah, loolu moom mooy li am parce que combat combat moo toll noonu. waaw moo toll noonu moo toll noonu. waaye abu sunu lamb ñëw na ci weekend bi ah. waaw ay ay ay yu bees mën naa ne. waaw parce que bu dee waajur bi production sax duñu ñu bees. parce que zaal ku ne xam ne yàgg naa tëgg. waaw mais nag mu ngi doog a tëgg Dakar. waaw muy suñ Saliou suñu xarit boobu. ci ba bërki dem moo tëggoon Fils de Kati. Hmm. ak soq de Fils de Kati daan. ci bët set teranga production jibi seen ànd ak DC Thierno Sall. waaw ñu. combat bi doxoon ci diggante Boy Bouba. Mhm. ak Abou Niass de 2. loolu lépp ci samedi beeg dimanche bi la amoon. ñu leen di gërëm di leen félicité parce que genre confiance ku ne xam ne am amul lu mu deful Diourbel mhm. jóg nag ba ne léegi comme màgg na. Mhm. faw mu ñëw seet si Ndakaaru gis nga ku mel ni si jaxate première fois mu ngi war a tëgg ci Dakar diggante caatu Yoof ak ki nga xam ne mooy Taïga 2 di leen di encouragé parce que mhm. tey rek waxtaan naa ak Bira mu ne ma mhm. jàpp nañ si sax si genre confiance parce que am na lu ko waroon teg mhm. moom moo ne bu ko kenn teg nañ ko ko wàññil allégel ko ko parce que mooy mooy jox leen confiance pour ñu mën a ñëw ñeneen ñeneen loolu mooy intérêt lamb chaque jour bu ñu mënoon di ay xale la ñuy soog a ñëw mais sa première journée boo ci gis sa bopp boo nekkul jàppaat dëgg mën nga découragé. da leen war a encouragé yombal leen. loolu la gars yi def ba kii ne leen même euh, panneau yooyu publicitaires yi na leen ko taal parce que comme defaroon nañ ko kii. Mhm. première kii bi mooy zaal conférence nan ko taalal zaal conférence. Mhm. loolu yëpp na Saal euh, euh, taxawalaat na beneen combat Saal confiance. Mhm. mu war dox ci diggante Saal Bambey ak caatu yëmbal. très bien waaw ñu daal ak seen yeneen promoteur yëpp lan lañ ci génn ak ba jàmm quoi incha allah léegi bu ñu fa jógee ñu ñëw ci Mor Diouf ci diggante Batista ak euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Boy Sadio nag Boy Sadio naan ko dina ko ndax mhm. moom it mu nekk ci mag muy muy muy mhm. kon nag combat bu neex la mooy xale góor euh, a soog comme ñoom ñoom ñooñu ñoo ko tëgg ñu leen di ñaar ñoom tam ñu am ci réussite. ñoom euh, góorandoo yi. waaw góorandoo yi. mais en même temps tam manager yi Babacar bi ndëgguma ko manager yi dañu bëgg ci tëgg léegi làmb taxawal nañ combat Zambala ak ak ak ki daanoon. ki Belende wala Belende Belende ak Zambala taxoon Belende Zambala voilà noonu information kon bu ñu fa ñu dem les arènes hmm. mu mel ni ministre des sports ni taxaw na Mohamed Ali ci moment bi mu ko soxla waaw waaw ah, ah, deux millions su ma juumalee. Mohamed Ali bu bi muy soog a dem Tunisie euh, première dame moo ko moo ko yóbbuwoon. moo ko yóbbuwoon Marième mu dem ñëw rechuté. nekk hôpitalu Thiaroye. Mm. Bira Sène envoyé texto. ministre Yankhoba Diattara ne ko euh, dafa am suñ suñ si njabootu làmb koo xam ne dafa hôpital xaw a sonn te tamit yeewoon na ci jàppale boobu Yankhoba mu ngi Munich bi mu demee seet yi waaw Sadio Mané mais dafa jël ay ay disposition vite fait pour gars yi dekkee sa fii ñu indi ko bi ñu koy yóbbu keroog bi ñu koy jëlee Euh, Ndiame Diop ak ak ak ak euh, DAPS ki ko jiite direction activité physique ak yooyu. Mhm. ak ak ak ak Birasé ñoo fa dem. ñoom it ñoo ko yóbbu ba fële nga xam ne moom mooy euh, Thiaroye. Mhm. jébbal ko enveloppe bi. mu kontaan lool vraiment remercier Macky Sall. Mhm. remercier ministre bi remercier. Euh, biraare Mircea daal waaxulaam vraiment muy daal geste bu rafet la bu rafet la ñu koy ñaanal yal na ministre bi def nga lu rafet parce que tamit loolu la doy autorité yi ah parce que tamit ñoom askan wi ñoo leen teg fi ñu nekk kon defe naa kenn ci askan wi su soraati ñoo xam ne sax dañuy jongalte réew mi mm-hmm. suñu nekk ci yenn yi mm-hmm. war na leen mën soutenir parce que xam nga loolu rek moo fi nekk quoi nit ki moom euh, boo ko tànnee te dimbaloo ko yéen ci loolu mooy dëgg mooy dëgg waaw mu mel ni ki côté lutte simple bi tamit mhm. ñëw nga ci ordinateur bi nga xam ne ajoon nañ ko mu mel ni ki nag aj ba jeex na wala boog suba lay jeex waaw le 28 février bi suba suba nag la war a jeex mooy ki ko yore manager mooy ndóoy ndóoy ndóoy manager waaw moo ñu ne woon suba le 28 lay jeex parce que dama doon laajte ba xam kay la mu ñu mais dama gis si sulaam ñu ne bëri na la laat na kon mën naa am ndooy juum mais daal ndooy mooy ñëw le 28 ndooy rek moom mooy man a jërëm boo gisoon moo ko mooy comme moo ko yore lépp ci moom lay jaar lu leer la woon le 28 la ma waxoon mais gis naa ñu ne mhm. ordinateur bëri na xaw ma nag bëri bi mu bëri dafa bëri te jeexul wala mhm. wala kii moo juum ndooy mais daal loolu la ñu wax boo nañ ko gën a xoolaat waaye daal le 28 la waxoon da a jeex loo si mën dégg mooy un mois la woon au euh, moins bu jeexee dafa war a takkaat ngeen ma. am na solo ba Thiago Faye tamit daa mel ni oto démb mu nga otoon gaa euh, fa adresse Senghor. adresse Senghor waaw Thiago Thiago Thiago Faye nag mu ngi mu ngi bëgg a nenu adresse Senghor. waaw waaw xam nga trois trois journées yi mujj yëpp. huitième neuvième bi yëpp moo def final ñaari mu jël ko benn bi perte benn bi waaw double moteur donc ñu koy félicité mu tam moo ko jëlaat caak te et puis tamit moi rek exemple la waaw waaw parce que caak toujours moo ngi en activité tout le temps régulier régulier tout le temps gis nga keroog arène nationale ñaari ñu fa teg yëpp moom moo def final du Sané moo ko voilà boo kon boo xoolee mën nga ne ñaar yam euh, fële moo ko finalu moo ko finalu ñett yi ñett yam moo ko finalu gañe ñaar perte benn ah. ñëpp sant ñëpp jox jox ñëpp dig daje beneen yoon mhm. mu doon man ak yow muy diw bi mu doon yow kese lépp benn la sotti ci ak ak mhm. na liggéey bi rafet rek waaw li ñu ci soxla mooy encore une na liggéey bi rafet jeex na parce que les arènes la ñu wax les nag bu ñu ko dee wax moom mhm. maanaam lamb 100 pour cent la mais tamit làmb autrement parce que autrement nag mooy ci lu nga xam ne bu dina neex a dégg boo koy dégg si reportage wala interview wala dina neex a liir boo koy liir ci bind ci wàllum papier yooyu yëpp nag li koy waral mooy rek jéema a teg liggéey bi ci yoon encore une fois di jéem a di ñaan ñëpp jàmm di wax ne nag tey waa CNN waaw euh, dañ ma invité seen émission boobu. ñu def leen am na solo CNM am na solo. man ak Ibrahima Faye Buzz ak xaw ma desaat na ñeneen ñaar daal. am na solo am na solo ah, ma parce que Buzz bu mm-hmm. defe naa def nga euh, euh, lu ma neex. waaw parce que koo xam ne moo la dalal baa. Mm-hmm. boo amee cent franc moo la ko njëkk a jox. Mm-hmm. defe naa ne loolu moom plaisir na solo ñu ngi leen di naanal ngeen def sa émission bu parce que dama di suivre man depuis biir ma invité léegi dama di suivre tout chaque lundi damay envoyé lien bi. mais émission yu am solo la ñuy def. waleefu ba kii yëpp bu làmb ju mel nii buy ñëw moom sax euh, ne woon na dañ kii comme boo demee bon après loolu orantan nañ ci waxtaan quoi incha allah waaw incha allah kon mbokk yi ñu ngi bëggee ñëpp di ñaan ñëpp mm-hmm. di jàmm di ballu ñëpp baax di ballu ñëpp baax di wax ne gars yi ñu ngi nuyu nag waa si waa Keur Cité si waa Keur Cité góor gi yëpp ñi fi yeewoo ñëpp ñu ngi leen di nuyu cité kër góor gi bàyyiwuñu kenn suñ ko waxee nag cité kër góor nag soo ko tuddee abu mm-hmm. du politique de mais sa xel day dem ci Ousmane Sonko ndax ñu ngi lay nuyu di nuyu waa cité kër góor dëkk ñaan ñëpp jàmm di la Hmm. a fi sama waa ji di courage waaw eh daw na dóori ko mu jël ko jël na dóori na mu jël ko waaye Ndiaye lal na ko sol koog loxo góosam da koo bëgg bët Ndiaye ak